Cheikh Sidil Mokhtar kaanu yusil wal xamaam man sa kanam man sa gannaaw mu ne waaw Cheikh Sidil Mokhtar kaanu yusil wal xamaam man sa kanam man sa gannaaw naan yàlla moo ne waaw waaw Cheikh Sidil ñaan fa yàlla moo ne waaw waxal boola bi na me 28 Pro TV ñu ngi am mbégte ànd ak waxtaan bi nga xam ne ni tàmbali woon nañ ko ci li ko ca Touba dëkk bu sell ba daal ñëw nak fi nga xam ne moom mooy Ndar lu waral loole nag moom mooy eh, ñaari rakkay ndar yi nga xam ne ñu ngi koy màggal at mu jot mu yom ak septembre édition bi bi nag ñu tuddee ko Serigne Sidil Makhtar Mbacké Euh, ñu koy ñaanal suñu borom dolli ko leer ñuy ñaanal tamit xalif général des seen mun Mountakha Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér euh, waaye délégation bi nga xam ne moom moo jugee Touba ànd ak délégation parrain bi nga xam ne Serigne Moustapha moom teew na fi dañuy fas yéene nag euh, nemmeeku kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo topp délégation bi ci daluwaay yi xool leen naka lañu ñu def ak yoon bi waaye tamit ñu waxtaan ak ñoom ci ki nga xam ne moom la ñu tuddee bés bi ñu ngi nag ak El Hadj Maysa Sall Euh, di bokk tamit ci délégation bi sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. Euh, ñu ngi lay fay. Euh, ñu ci fekk la fii ci sa daluwaay bi nga xam ne moom mooy hôtel La Rose ci Ndar li ko war a nag moom mooy ñaari ràkk yi am na noo gisee yoon bi ak dal bi. kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen teewaay fii de li nga xamante ne bii. mooy li xew fii ci Ndar tey muy bis boo xam bi dañu ko tuddee nit ku baax di nit ku yiw nit koo xam ne kii dafa boole woon ñépp ba amul xàjj ak seen muy Cheikh Sidil Muxtaar ñu tuddee ko bis bii man nag day kenn ci man ndax 2007 la ma yóbbu Màkka booba nekkagul xalifa général teg nañ ci ñetteet mu door a nekk xalifa général di kenn ci man koo xam te kii bari na kilifa yoo xam ne bu ñu fa masaa bëgg a dem ci ci moom ci man la ñuy jaar ma yóbbu leen ci sëñ Moustapha mii nga xam te ni bii nag moo di e, taawam moom it di sama xarit di sama wëlëre di sama àndandoo bari na foo xam te fii boobu sëñ Moustapha masaa teew soo gisee sëñ Moustapha gis ma ci ginnaawam mbaa gis ma ci kanamam ba ci ndar gii ñaari rakk yi ma fi mujjee ñëw moom laa àndal ñëw fi booba lañ ko tuddee woon sëñ Mbàkke soxna Lo sëñ mos sëñ Sidi Moxtaar yónni bi ma ñëw fi ànd ak moom booba laa fi gëj ba tey jii tey nag bi ñu ko tuddee sëñ Sidi Moxtaar te mu nekk sama xarit di sama wëllëre sëñ Moustapha mii di sama xarit di sama wëllëre moo tax tey lu ma jàppan ma bàyyi ko ñëw teew si ci ñaar rakk yii waaye nag délégation bi moom yéeme na lool ndax fu nu jaar bëgg nañu kontaan nañu ndax mbooloo mi bari na lool wote yi yéeme na lool ñu teg ko ci ab yar nag ay tekkin ba yëg si ndar kii kon lii mooy li nga xam te ni bii mooy li nga xam moom la ñu war a njukkale sëñ Sidi Moxtaar mi ñu tudde bis bi moo tax tey képp koy xaritam di am jàmmam di wala réem teew nga ci bis bii fii nu nekk nag dal bii kii nga xam te ni mooy sëñ Atex Mbàkke moom Mm, Cheikh Awa Balla mooy borom dal bii moom lañ fi dalal ñun nag yàlla dogal ñu di ay xaritam dëllër ñu ñëw nekk feek moom waaye moom mooy boroom dal bi moom it nag day koo xam ne kii day kenn ci sëñ Sidi Muxtaar nekk it koo xam ne day kenn it ci sëñ Moustapha ndax moo sëñ Moustapha dañoo xaritoo te moom mii wajuram moo yar sëñ Sidi Muxtaar moo tax mu dem nii mu demee ak sëñ Moustapha lépp lu sëñ xew le boo fa teewee di ko gis sëñ Atix ak fu mën a doon nag te it mag la waaye teewul lu mën a jàpp dina ko bàyyi teew fa ndax wëllëre goo xam ne di am na ko sëñ Moustapha kon loolu lu am solo la jar naa eh, seede moo tax ma di ko seede ndax moom mii day sama xarit di sama wëllëre sëñ Moustapha di sama xarit di sama wëllëre ndax nit ku nekk su la yàlla booleeg moom dafa am loo war a royee ci moom loolu nag moom royukaay la loolu boo ñuy roy ci moom nag bis bi nag moom suñu xol da cee set lool nu kontaan ci lool ndax kiñ ko tudde kon tey lépp rafet na nag sëñ Moustapha dalal na kenn ku nekk fa mu war a dal lu la fa war a fekk ci xéwal fekk na dafa dara manqué kon ñoo ngi sant di ñaan sëñ Moustapha mi nga xam ne tey mooy xalifa sëñ Baara di xalifa sëñ Sidi Muxtaar sunu borom yàggal ko fi te way wéral ay cëram nag ñi fi teewal suñu kilifa alaaji maam Thierno Mbacke nga xam ne ku ne xam na ko ak Cheikh Sidi Makhtar nga xam ne moom mm, seen diggante ñu ngi tàmbale ci diggante Serigne Touba ak borom Daaru Muxti di diggante bu rafet mm, diggante Serigne Cheikh Awa Balla ak Serigne Bara it di diggante boo xam ne bi ku xam démb xam tey xam nga ko ndax Serigne Cheikh Awa Balla bi muy sañ ci Daaru Marnaan 1933 boobu Mbacke Kajoor la jógee sañ ci Daaru Marnaan waaw diggante Cheikh si Mokhtar ak suñ maam Thierno diggante bu yàgg bu rafet boo xam ne bii ñun am na luñ ci dund fekke ko waaye am na ci lu bari loo xam ne nettali nañ ñu ko ñoom ñaar ñoo bokk yarandoo ci kër suñu Cheikh Balla ànd ànd bu rafet boo xam ne bii seen diggante moom euh, diggante la daal bu soree soree diggante la bu sori kon nag bu yàlla defee ñu teewal fi sëriñ bi dëgg la suñ kilifa biñ dikkee am nañu ak moom moom lañu fekk muy sëriñ Ateex di doomi sëriñ Cheikh Balla di rek sëriñ maam Thierno sëriñ bi yebal maa ngi ànd ak sama rakk sëriñ maam Thierno meeru Daaru Marnaan ak Abdoul Ahad Mbacké ak yeneen taalibe yu Ablaye Faye ak Galas Mbaye ak Cheikh Thiam ak yeneen taalibe ñu teewal fi sëriñ bi am nañ ci nag mbégte lool ni ñu ko sëñ bi sante woon it def na daal na ngeen ànd ak sëriñ Moustapha ñoo départandoo ak moom guy mbidd ànd jaar makk baraag yi ba agsi fii waaye wax dëgg yàlla yoon wi yëpp am nañ ci mbégte ndax fépp fu ñu jaar rek nit ñi yëg nañ eh, ne ren moom wax dëgg yàlla tudde gi ñu ko tuddee Cheikh Sidi Mokhtar ah, kuréel bi def na lu rafet def na lu baax loo xam ne defal na ko Sénégal gépp ndax Cheikh Sidi Mokhtar day jëmm joo xam ne ji liggéey na ci lislaam liggéey boo xam ne bii képp ku di jullit di murit te jamonoonteeg moom rek war nga koo sant war nga koo gërëm ndax liggéey na ci lislaam liggéey bu rëy rëy liggéey na ko ci kër Serigne Bara liggéey na ko ci kër Serigne Cheikh Obal liggéey na ko it ci yoonu murid yëpp jëfal na yoonu murid yëpp kon nag mu bàyyi ko fi ñu njukkale ko tudde ko bis bi loolu buñ ci teewee ñun dañ ci am mbégte ak kontaante wax dëgg bi biñ dikkee ba léegi it ah, fii ñu ñu dalal dara manqué wu fi toppatoo nañ lu baax ñoo ak sëriñ bi ñoo ànd fépp fu mu wàcc ñoo ànd jóge guy mbind ba fii waaye dara daal manqué wut wax dëgg yàlla am nañ ci nag mbégte lool ndax lii day lu rëy rëy nekk la lu rëy ci lislaam nekk la lu rëy ci yoonu murid ndax ki ko ki ko defal day ku ko jar a defal koo xam ne kii bi mu fi toogee diir bi mu fi nekk lépp Sëriñ Tuubaa rek la fi nekkal jëf na ci lislaam it loo xam ne ñëpp mën nañ cee teg seen bët képp ko làmb daj ko xool gis ko jëf na ko ci yoonu murit jëf na ko ci kër sëñ baar gi mu bokk waaw te it day cërub borom daarum di cërub sëñ Seexu Bal ndax euh, ku xam démb xam tey xam ne Seex Sidi Moxtaar sëñ Seexu Bal lañ ko tuddee euh, kon tur woowu biñ ko ko tuddee euh, moom neex na ko lool dégg naa ci mag ñi wax ne sëñ Baara tudd na ko ñaari doom ku njëkk dafa nelaw moom mii bi mu ko tuddee dana ko nag euh, cheikh a ngi noonu mu ne ko dana dana am loolu dégg naa mag ñi wax ko waaw euh, ku suñ Cheikh Balla it boo ma saan fi moom it suñ Cheikh Balla rek lay waxtaane ndax doo ko dundoon ndax moom ni ma koy waxee noonu suñ maam Thierno dégg naa ci moom mu ne ñoom ñaar ñoo bokk yarandoo ci biir kër gi ñoo bokk yarandoo suñ suñ Cheikh Sidi Moutakha di magam ba noppi wëlbatiku nekkaat xalif général des mourides wut Serigne Touba kon loolu cër bu rëy rëy la kon nag ñoo ngi ci am mbégte ci teew gi ngeen fi teew loolu daal xam nañ ko ci diggante bi waaw ñoo ngi sant nag di gërëm ndax li ngeen def lu rafet la ñoo ngi ñaare ni ñu fi dikkee ci jàmm yàlla sàmm ñu aar ñu bañ delluwaat ci jàmm ak salaam ki nga xam ne it moom lañ àndal di suñ kilifa di suñ mustaar di suñ mag nit ku baax la wax ni kii ku neex ànd la gis nañ it ñun. liñ ci fekkee diggam ak sëriñ bi ni mu nekkoon ci gannaaw si di Mokhtar ak mboolem ay rakam yëpp ak liggéey bi mu koy liggéeyal kon nag wuuti gi mu wutu tey nekk xalifa Cheikh Sidi Mokhtar nekkaat xalifa sëriñ Baara yàlla na lool yàlla ko yàlla yàggal lu mu bëggee liggéey ci lislaam rek mu liggéey ko te ànd ko ak moom ndax suñ kilifa la suñ mag la waaw nii diggante Cheikh Sidi Mokhtar demee ak sëriñ Maam Thierno ñu suñ diggante noonu rek man mii di wax ak yéen féetal na ma doom joo xam ne maa ko may joxe ko waaw fekk na ma doomam joo xam ne maa ko joxe ko waaw bépp cër boo xam ne bii eh, mag dina ko féete rakkam rek cër boobu man jox na ma ko féete na ma foofu kon nag ñu ngi ñaan eh, wutu gi mu wutu Cheikh Sidi Mokhtar wutu ko Cheikh mu Lamine Cheikh Mamadou Lamine Bara tey nag xalifaam yàlla yàgg barke Cheikhul Khadim waaye sagal eh, Serigne Touba ci bisam bi nga xam ne mooy ñaari rakkaa yi xam incha allahu rabbi ci lañ nekk nii nga xam ne ba mu koy def fii tumurànkoon na lool lislaam tumuraankoon na lool nga xam ne ñaar rakkam yi bokk na ci li yëkkati diine fii ci Sénégal wala bokk ci Afrique sax laay wax ndax jamono boobu kenn ku ne xam na ne tubaab yi ñoo doon buur di bummi bëgg ñoo lu dul coloniser Afrique waaye lawalaale fi seen diine seen diine ñi nga xam ne moom lañ yor suñ tubaab nekkoon koo xam ne bañkat la woon nekkoon koo xam ne yëkkati kalimatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moom rek moo ko yitteloon mu bañ ca ba mu jotee taxaw ci seen kanam la njëkk a def mooy kabbar julli ñaar rakka loolu naafile la dawal la def euh, loolu nag ci euh, moom la ñuy fàttaliku di ko barkeeloo euh, ñëw nag incha allah rabbi ci ndar ngir fas yéene ko def julli goo xam ne julli tàkkusaan lay doon sax incha allah rabbi kon dañuy sant rek bu baax a baax ci bis bu mag bu toll noonu bu ñu ko jëlee duppee ko suñ Sidi al Muxtaar Mbàkke mi nga xam ne kenn du ko fàtte mu jàmbaar ju mag joo xam ne dafa wuyu maanaam maanaam maanaam bëgg-bëgg Sëriñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa li mu doon sonn ak di ko ñaan mooy sunu borom subhaanahu wa taala may ko mu boole julli ñëpp ñu ànd nekk benn sëñ Tuubaa waaye na ko ci benn bu bayit yaa rabbi jaalil muridina maa fi xisnika alxasan wa shamlaj maa sunu borom maa ngi lay ñaan yàlla na nga ma booleel murid yëpp murid sëñ Tuubaa bu ko tuddee mooy ab julli ndax murid la alladi yuridu wajhahu mooy ñu bëgg jëm yàlla suma subhaanahu wa taala sëñ Tuubaa kon dafa ñaan yàlla suma subhaanahu wa taala ne maa ngi lay ñaan jullit ñi yàlla na nga leen boole ñu ànd nekk benn ca bay ci sew tànk kon Sëñ Sidi Moxtaar bi mu ñëwee gis ngeen ne lim njëkk a def mooy bëgg dama dégg murit wala xaadir wala tijaan ñoo ñëpp yàlla suma soxna dimbali ko ci nag ca kàddoom googu mu barkeel ba ñëpp àndoon nekk benn la ci gën a yéem mooy julli korite tabaski sax ak xilaafaam ba mu jax takk ñëpp dañ ko àndoo di ko defandoo day ñaan rek suñ dañ mën taxam mbàkke fi nekk yàlla na fi yàgg te wér waaye incha allah rabbi loolu la ñuy jàpp ne mooy kunne ba saa di taxaw kon s ci waxtaan daal euh, jàmbaar la joo xam ne incha allah rabbi xëy na ca kanam ci base bi ci cérémonie bi incha allah war nañu cee def ay waxtaan yoo xam ne war naa ñëw waaye daal délégation bi la ñu wax rek ne forte délégation boo xam ne waa Guy Mbind kenn desut muy seex yi muy muy muy yi muy taalib yi ñëpp a ñëw tey tey ku xool euh, maanaam délégation bi ku xool convoi bi bokk da nga xam ne wax dëgg yàlla bis mi yitteel ñu waaye da dañ ko jox nag koo xam ne sunu lépp la woon di suñu si da Muxtaar Mbàkke di ko xam ne sagal na maamam Cheikh Amadou Lamine Bara ndax diiran mu toog ci xilaaf ak Cheikh Amadou Lamine Bara kenn ko na gis a Mbàkke ko yor la fa am Euh, bi mu nekk xalif général murid kenn ku ne xam na li mu def ci yoonu murid donc kon euh, dañ koy ñaanal rek yàlla sama borom euh, maanaam xare ko àjjana taas ñu ci barkeem waaye njaboot gi mu fi bàyyi tamit muy sëñ Mahamadou Bousso mi di xalifa Cheikh Amadou Baar yàlla fi yàgg wér ñu ànd ak moom liggéey bi incha allah rabbi mu nekk nag wax dëgg yàlla koo xam tamit ku amaana ku lawet la nekk koo xam ne ku baax la nekk xam ne ku oyof la te mandarga yooyu dañ ko soxla ci maanaam maanaam maanaam ku jiite rawat na xalifa kon moom dañ ko ñaan tam yàlla na fi yàggatoo ci barke ngooñ ya daa jooy Seex Sidi Muxtaar se Mustafa feral nga leen na yàggu lool alayhimu salaatu wasalaamu boo àllëgee nga may nu jannatu ñu ngi ànd ak yéen ba tey rek ci 28 Pro TV ñëw nag fas yéene tamit euh, taataan ay kàddu ci délégation parrain bi sëñ Samat ñu ngi lay nuyu di la dalal ci 28 Pro naka ngeen dundee ren Euh, parrainage bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee waa kër euh, Serigne ñu ngi ko tuddee Serigne Cheikh Sidil Makhtar Mbacke yéen nga xam ne yéen a bokk ci coordination kër gi ak ci délégation bi xam ne ñoo leen topp. asalaamaaleykum wa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax alhamdulilah rabil aalamiina di mbégte bu baax a baax euh, dañuy sant yàlla rek que Serigne Sidi Mokhtar moom jàpp naa ne lépp lu ko waaye defal jullit yëpp nga ko defal. rawatina ñaari rakk yi nga xam ne moom lañ ko tuddee ñun nag ay ndongaam la ay ay taalibeem rek lan ànd ak sunu sëriñ sunu waajur Cheikh Moustapha ak sunu waajur suñu Bass Abdou Khadir euh, ñëw fii xam ne moom lañ ko tuddee mi ñaari rakkaay yi ànd ak mbooloo mu takku jàpp na ni ba mu dalee ba am ba mu dalee ba nga dalee tudd nit ba tey lu mel ni moom ñeen ñëpp neen ñu ngi koy soog a gis waaw gis nga parce que gis ngeen oto yi jàpp oto. moom la ñu ànd bi ñëw waaw. jàpp ngeen ni tamit euh, yoon bi maanaam amu leen ci benn jafe-jafe. non non amuñu benn jafe-jafe. bi leen topp yëpp. déedéet amuñu benn jafe-jafe ñëpp egg nañu si jàmm ak salaam. Mhm. waaw bi ngeen dikkee fii naka ngeen dundee tamit bés bi bi ngeen dikkee ba Ndar. waaw alhamdulilah rek parce que ñi ñu àndaloon ñëpp bi ñëwee ñëpp wutal leen fi ñu nekk ñëpp wutal fu fi ñu dalloo ñëpp am na fu ñu daloo daal te loolu mooy si ëpp solo rek. nit moom soo àndeeg moom soo ñëwee ko fu mu nekk fu mu dalloo waaw. dal li daal bëri allah lépp doy waaw lépp doy na te ñun dañ ñëw def nañ suñu togg def nañ lépp. Mhm. waaw ana naka ngeen gisee waa kuréel ñaar rakka yi. wax dëgg yàlla ñoom ñu neex a daal parce que jàpp nañ si bu baax a baax a baax baax waaw jàpp nañ si bu baax a baax. lu ngay ñaax taalibe yi rek xanaa ci yoon bi ak dellu bi tamit. xanaa ñu defaan ndànk rek comme bi ñu ñëw ni defoon rek incha allah fu mu ko defee dana egg si jàmm ak salaam. tey ana yan euh, taxawaay ngeen bëgg tamit nit ñi taxawee ko ci bés yi ñu mel ñi koy tuddee euh, kilifay diine rawatina lu demee ni ki euh, sëriñ Sidil Mokhtar Mbacke wala boog keneen bu ko doon tuddee ana yan kàddu ngay dénk ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñooy askan yi seetaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoom lañu ci war a taxawee rawatina waa buñ ko mënee wax waa nguur gi wala waa réew mi. waaw sant yàlla rek parce que man man sama bopp laa xam man Abdou Samane Mbacke laa man sama lépp lu nga ko tuddee c'est kon dama jaay samay yére yu ma sol jar na ma jaay samay yére jar na ma ko def ko bis suñu seen muxtaar li ci war def ngeen ko waaw lépp def nañ ko moom lépp macha allah def nañ bi ñu ko Cheikh Siil Muxtaar Mbàkke xalifatul haam dëddu nu barki démb fekki maamam ja ak waajuram ya kii teew teewaayam tey di Cheikh Modou Moustapha Mbàkke ñuy ñaan na Cheikh Moustapha Mbàkke taawa woon yan ba bi Cheikh Ahmadou Bamba fekkee yonent bi mu taawoon yéen bii bi Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke fekkee maamam ya ak way juróom ya ci dara yéen salaam salaam barkeb Sëriñ Tuubaa barke xasaayid yi ñoo ngi ñaan ci dara yant jëm Sëriñ Tuubaa ak Moustapha ma ca mën a war a di seenu turandoo ñoom ñëpp yal na yàlla taxaw ko yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla di dolli yërmandeem ci moom dolli ko ci mboolem xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boole ko dolli ko ci mboolem jullit yi barke Sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf